Eh, di nuyu ñëpp di ziar ñëpp man ñaari kàddu rek laay sànni Macky Sall doo bokk Ousmane Sonko day bokk Macky Sall doo bokk Ousmane Sonko day bokk Macky xiif nañu sonn nañu Sénégal am ngeen pétrole am ngeen gaz mercure fer marbre uranium zircon lithium phosphate ngeen am euro sama dollar am diggante Guinée Bissau Sénégal acier bu fa nekk kër gu nekk war naa am un million et quelque par mois te doo liggéey Macky xañ leen loolu lépp tënk ko Macky olof yi ñu ne doy na français yi ne c'est fini suédois yi ne dereke olof yi ne la xolal doy na français yi ne ko banta abanta olof yi kasi man na ya jeex na léegi nag ñu wax ne patriote yi képp kuy patriote Ousmane Sonko estapol nga gëm Ousmane Sonko di xeexal sa réew waxuñu sax sénégalais yi dañuy wax Afrique am foo xam ne dañ fa sonn 400 ans njaay jaabi doy na dañu war a moomaat suñu bopp suñuy richesse dañ ko soxla mbag yi dañu war a dellu Sénégal te dañu war a woo taxaw suñu réew ku sonnul si Sudan bi ñii am nañu stroke ñii ndigg yi can nañu ñii bejjaaw nañ te heure bi jotul dañoo war a ñibbi te ñibbi jot na bu ñu gëmee loolu nag ñun képp kuy patriote da nga xeexal Ousmane Sonko te bu ci gis sa bopp ndax boo ci gisee sa bopp doo xeex li nga war a xeex di ñaan bi ñu bariwuñu nag stockholm mu mais macha allah liggéey ba am na solo sama ñaari siste yi dañuy liggéey lu am solo ci suuf maam ñoom nag may yuuxu ci kaw ñoom ñooy yuuxu ci suuf macha ca kaw ca kanam parce képp kuy patriote gambien sénégalais am na fi nag ay patriote gambien macha allah macha allah xam naa tey tàngaay bi lay jàpp moo tax ñëwul parce que fu nekk nit ak may woowee pour ñëw kontaan nañ di ziar di di digal sama grand bi. xamante ne ni moom la ñuy wax. ci leen ñaari perspective bi mooy Macky Sall il est fini Macky Sall is over we are done with Macky Sall. The question is who is the next and what's going to happen now. And here, and here we have to be strategically thinking about the options that have those options? Macky is over, we know that. Macky Sall jeexal mais lan moo ko dese li ko dese mooy prolonger son mandat de deux ans loolu moo nekk benn pexe bu mu am est-ce ko nangu. est ko nangu. kenn du ko nangu de kenn du ko nangu kenn du ko nangu bu soobee la suñu borom ndam rek kenn du ko nangu de Sonko day bokk par force. moo tax gis ngeen bu ñu kenn divertir Macky Sall is behind us it's over. what we are about to be ready for now is for the next 20 25 years for this new generation which is us here. because it's also about generation and when, when you talk about generation it's not only about léegi li nga xamante ne mooy sàtt réew ma dafa ñëw jalgati lépp teg ci suuf ndax lan moom dafa bëgg a nekk buur moom dafa bëgg a toog nekk buur ci biir réew ma te nag mu ñëw ne moom tey dafa war a toog ci biir réew ma di noot doomu aadama yi di rey sunuy doom di rey sunuy sunuy sunuy sunuy sunuy sunuy sunuy sunuy jaboot toog ci suñu kaw ay mbokkam ak i ak i ak i toog ci naataange ñun ñu nekk ci kër gi suñuy doom nekk di sonn loolu nag mooy li nga xamante ne moom la xeex dina fi jóge ci tey jóge ci nii wala bu jóge ci naa par la dafa ne fu mu nekk nii képp ku nga xamante ne am na yaakaar ni kii mun na daan jëlee na fi ñeneen ak ñeneen ak ñeneen léegi nag Sonko mi nga xamante ne moom la teg bët yaakaar ne ne tey jii bu yéegee rek moom affaire am dootul baax looloo tax nag mayatu ko jàmm mayatu ko salaam mu ngi nii jël Sonko tëj ko ci biir këram kidnappé ko parce que da koo kidnappé loolu la ñuy wax kidnappé tëj bëpp ci dem liggéey te loolu nag tegu ko ci feer na loolu nag pour mu tegu si ñun ñii taxaw fii ak Sénégal